internautes de Senbuzz et de Dakar Buzz dal leen ak jàmm euh, yaakaar naa ni euh, ginnaaw euh, tey lañu julli di ñaanal jullit yëpp yàlla dafa leen jàmm ak tawféex yàlla jéggal suñuy bàkkaar yi nëbb ak yi feeñ ci barke Seydina Mohamed ñu seet si ki nga xamante ni moo di Serigne Abdoulaye Diop Khass war a waxtaan ak moom waxtaan bu yaatu sang bi ñu ngi lay xaar. cheikh bi maa ngi lay fay di profité di baalu ak ñëpp di leen baalu ak di ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm. kóoru déwén sunu borom fekk may ñu fekke ko jàmm ak dal ko te mën ko ci barke mm-hmm. yonent bi mm-hmm. macha ok ça euh, mais nga gis discours bi nga xamante ni moom la kër diine yëpp yëkkati maanaam jàmm ak mm-hmm. booloo benn doon doon benn ci li nga xamante ni moo di réew mi euh, sëriñ bi bu déggee yooyu kàddu fan la fan lay taxawaat. kontaan ci li ci jiitu. Mm-hmm. ndax xam nga lu dul jàmm jàmm ko gën ci mm-hmm. àdduna. te Sénégal toll na foo xam ne gis nga lii ñuy def nii ñaan yàlla ñu wax ko. dañuy ñaan yàlla it ñu jëfe ko ba jàmm ji yëpp dellu si parce que moo fi nekk aussi gis nga cheikh bi lu dul jàmm ndox la buy war a boo xam ne mun na laal ko ne ci kaw suuf mhm. te da ngay gis ni àdduna ndox muy ndox moo xam ne moom dañ ne bàll la riir di uti mhm. toog naan duma laal taxula cee mucc mhm. pour nga xam kon dafay baax lii nga xam ne tey déglu naa discours yi ñëpp macha allah ba déglu discours président Macky Sall moom it mu ngi woote jàmm parce que loolu moom lañ koy xaar aussi nag ci réew mi Cheikh bi gis nga réew bu la yàlla maye nga bokk nekk ca bopp ba gis nga lépp luy jàmm boobu nit ñi ko ñaanal ci sa bopp lay tegu ndax yow la yàlla jiital te ku jiitu sonn loolu nag kon moom loolu muy wax moom nañ ñu ngi koy ñaan moom mu dëggal ko. Mhm. doxee ko. Mhm. ba jàmm rek ñëwaat ci réew mi. waaw mais xam nga moom ci jàmm jooju mu woote woote woon na ko euh, maanaam euh, jouru 4 euh, avril. ba ni ubbil na ay portom ñi nga xamante ni ñoom ñooy opposants yi ak képp koo xamante ni société civile bi nga bokk. Mhm. tey jii bu fekkee ni loolu daf koy wax waxaat ko est-ce que tamit jotul ñi nga xamante ni ñooy opposants yi fekk si ko ci jàmm jooju nga xamante ni moom lay woote. waaw xam nga comme moom xam na ci xew euh, waxoon na ko. Mhm. gis nañ mu waxaat ko. Mhm. mais fi mu ko waxee ak fam ko daan waxee. su ma jumul bokkul. Mhm. ndax fii da ko waxee ci bisu julli. jullit yépp bokk toog di ko xool ku ci nekk yor kurus di jaamu yàlla ngir yàlla nangul ñu sunu ko def ci réew mi jàmm. amaa nag nañ jël beneen cause bi mooy sunu borom mën naa dogal. ci yéene ji mu ko waxee ak ñi ko déggit ak fa mu ko waxee yàlla barkeel loolu. jàmm daal di ñëw ci réew parce que gis nga. jamono bii ñu nekk nii gis nga li jot a dund moom. Mhm. nañ ñaan yàlla rek ñu bañ koo dundaat. Mhm. ndakaaru gii li fi xew te yi commencé di xew nii léegi ay butéel yooyu ñuy sànni léegi dem ba. ñoom ñu yor beneen stratégie boo xam ni maara day taali ñii ngi def lii ñii ngi def lii. Mhm. tey daf lay wër ni xel yooyu di màgg baaxul ci réew. gis nga tey kuy bëgg a dee wékku. congaan a ko wax léegi mhm. kuy bëgg a dee day wekku seex a gis nga tey muuma mhm. boo ko jàppoon di dóor di dóor di dóor doon nekk yàlla tey nag dina tëb rëccale wax boo xam ne du xam sax fa mu mhm. ndax ku tiit wax baa nga jóg dox loolu moom alaa kulaa mënul ñàkk euh, macha euh, bi nga déggee euh, ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko ca Ziguinchor mu daal di wax naka nga jàngatee discours bi ñu ci bari Sénégalais yi ne est-ce que maanaam fay nga xamante moo fi am cheikh bi gis yi bu ñu la dugalee. Mhm. wala di la wax loolu lu ci nekk rek ci sa kaw lay këpp xoolal li mu daj jamono bi yow yaa ngi koy toog di ko yërëm keneen a ngi toog di ko yërëm. Mhm. waxuma la sax li mu daj mais ñi ko wër sax li daj lu ko gën a métti amul ci kaw suuf. comme kat xoolal léegi ñaata nit lañ ñu jàpp nañ leen actuellement ngir benn yëf. Mhm. léegi nag pour sauver ñooñu moom noonu la mën a defee. te mooy li may faral di wax un contre tous booy wax ñëpp a yor di noté. Mhm. di xalaat yow baat boo suruxal boo jum bañ man la jekki kon kooku sa noppi day ëpp sa wax. Mhm. parce que loolu moo koy dimbali mooy dimbali ñi mu àndal tey ku loolu rek yaa ngi ci erreur ci moom moom kay li mu nii ñun ñëpp dañ ko cee war a gën a digal mu gën cee sax macha allah. Mhm. Euh, ñu gis euh, ñaari fan yi euh, ñetti fan yi ñu génn waa Ngor amal nañ xeex boo xamante ne bu méttee métti la ba démb ki nga xamante ni moo di kër Farba Ngom dañ ko lakk buñ dee gis yenn jafe yi nga xamante ni moom la ñuy dund. wala li ñu njëkk def mooy dañuy mastawu Farba. Mhm. nekk nag parce que ñun ñëpp lañ mhm. euh, am na ci loo xam daa metti mhm. ndax kenn yéenewu ko kenn man damay wax ni nit warul yéene moroomu jullitam lu lu metti man sama xalaat mais damay wax ni gis nga moo tax jël population bi def ko def ko def ko arme moo war a jiitu nga jël arme def ko ci kaw kiiwul parce que tey am na ci loo xam ni. tey boo ko melee ci sa gox. dara bu xewee sax waa gox ba ñooy daw wëri kër gi ni kenn du ko laal. mais da ngay gis kon dara bu xewee nga gis ni ñoom ñëpp mer wane waale seen mer kon xam nga ne am na lu ñu la dencal ci seen xol. Mhm. kon loolu ñu la dencal na nga war a jéem a xol parce que nguur moom cheikh bi luy des la rek te day jeex. Mhm. dara dara dara saxu fi. Mhm. léegi boo gëmee ni day jeex nag te gox ba la yàlla booleel tey ndaw yam la booleel fexeel sikk ak ñoom ñëpp jàmm te bañ a jiital sa intérêt personnel comme na ko Maam Abdou Aziz Dabakh wax. xam nga li Maam Abdou doon wax Sénégal yëpp xam nañ ni. man intérêt peuple laa jiite wala intérêt personnel parce que mhm. bëri na ñoo xam seen intérêt personnel moo leen xañ moo leen yóbbee lii mhm. parce que yor alal te amoo jàmm nekk ci gox te amoo jàmm amul njëriñ nekk ak ci jàmm moo gën mhm. euh, naka nga gisee génnuk Idrissa Seck gi nga xamante ni def na ko tout à l'heure borom aay di macha allah <laughs> nitu Thiès gi nga xamante ni génn gi nga xamante ni génn na ko ci euh, maanaam euh, jàppoo gi mu jàppante woon ak ki nga xamante ni moo di son excellence monsieur le président de la république nee na daal fi mu toll na yoonu boppam di de ba ma ko dégloo ci ci conférence kii yam bi mu a moom ñombor la mm-hmm. maanaam boobu la wax jeexal wax lépp xam nga ñombor day teg fii fu ne lu ñu yëngu fële da daan teg mm-hmm. dégg na xam na fa mu war a jaar ak fan la tànk ba du jóge mm-hmm. ñombor xoolal ci àll sa tànk boo koy teg automatiquement sànni na nopp ba xam na ne am na koy ñëw te pour nga jàpp ñombor metti na de kooku nag moom boo bëggee mucc parce que mënoo ko kàmbal fenn de. Mhm. da koy ñaanal yàlla muccal ko rek. mais est ce que est ce que jamono ji est ce que waxu politicien jar na dóor sa doom parce que bu ñu xoolee ànd yi fi amoon démb ak barki démb yëpp ànd yëpp tàqalikoo nañ. mais fu mu jóge fa ànd yee jóge man jóge ca Ablaye Wade da nga ci ñu àndoon ab Diouf ànd ak Ablaye ànd ak président Macky mhm. kon kay ànd yi bu mu la jaaxal ànd yi kay moom du tey. kii di commande loon. yàgg na de. kan lañ kan lañ ku ma àndaloon. Ablaye Wade ah waaw. Mhm. léegi mu ngi ne àndaat ak président Macky Sall. Mhm. kon kay ànd bi moom bu mu la jaaxal. képp ku bàyyi nit topp la jàppal li bis dina jot mu bàyyi la topp keneen. Mhm. force la. parce que topp la ngir bëgg parce que boo koo xam ne yow mosoo wax ci moom maanaam da ngay déglu seen yenn kii yi gars yi xewal léegi da ngay dégg da ngay dégg nga tiim nit ki xas ko tey mm-hmm. suba nga ànd ak moom kon kay kooku war naa xam ni moom lii nga ko àndal ñaar a tax mm-hmm. sa jëggu-jëggu bopp ak sa intérêt bopp mais du bëgg parce que bu doon bëgg nit ki li Serigne Cheikh di wax mënoo koo xas tey suba nga tàgg ko mm-hmm. parce que nee na ñaar yëpp da doon xam ban la ciy jàpp moo euh, ba tey euh, li nga xamante ni actualité fi mu nii ñu ngi ciy tudd célébrité yu baree bari ak ñi nga xamante ni ñoo di ay joueurs euh, ndax Serigne Abdoulaye Diop ñi nga xamante ni ñoom la ñu jàpp ci groupe bu toppukaa boobu <laughs> Serigne looy. <laughs> Ah, xanaa xanaa rek ci dañoo. mos a am sa kaa ah coogaan du ma ko de. ah, <laughs> ah, ah da laal bu waa. non man non man dama leen di ñaanal jiitu. Mhm. topp kaa kay man lañ ma fa topp est topp nañ ko fekk. waaw parce que ci topp kaa ci topp kaa boobu noonu est yow sa plainte dafa dafa dugal wala dugal mosoo leen a dugal plainte. jamais man su ma leen ñu ma tuumaal mhm. boo leen demee fàttali leen wala nga tegal leen la ñu waxoon ñu rëcc ko. Mhm. kon def lu baax rek moo am solo. tey bañ leen attendre. suñ leen tegalee vidéo yi li yaa ko wax. billaahi moment boo xam ñu njëkk rëcc bañ koy wax lan moo waral sax ñu wax lii. kon lu mu mënoon doon rek jaru ko ndax tey réccu nañ ko te lu ne mun na koo jurit si nga lii bu ñu ko arrêté wul jàppali wax yu bëree bëri parce que Sénégal danga jàppali mun nga dëkk ak nit sax mu woo nit ci suuf de ne ko lii xew na te loolu xewul moo tax buñ ko ah jigéen jàpp di jàpp mhm. aca nañ continuer rek nga xool man moo tax doo dugal plainte ak li la waxal yëpp mais jéggal naa leen loolu nag man la du yow ah, tooñ aussi ah, moo tax nga bëgg maa non parce que man lañ tooñ xam nga tey mënu taxaw ni ma da ngay jégal ñu bañ non non mais man la arrangé coogaan yaa coogaan nag maa tey le ah non non moo xoolee kuy a <laughs> mais euh, sëriñ bi lan lañ si mën a jàngee toppkaa tey gis nga finalité bi nga xam ne ñenn ci ñi ko doon def tey moom la leen jural loolu ban message la ci société bi war a jàngee mooy mhm. est-ce que dégg nga ñu ni di waxal na nit lu baax yóbbu nu ko ci yoon waaye diw waxal la nit safaan loolu laal xolam te loolu sax moo gën ci ñoom kaso bii ñu leen yóbbu moo gën ci ñoom fuuf parce que congaan am na loo xam ne wax nga ko nit billaahi rey nga ko te yëgoo ko congaan dafa ñoom ñoo xam ne ay nitu kerse yaa ngi wax loo xam ne yaa ngi toog di ko kafe ñoom rus nañoo génnati ci seen suuf di xool seen waa kër mm-hmm. ku ci nekk ak nam koy xalaate te xoolal Sénégal tey mën nga wax fukki nit juróom-ñeent yëpp ni dëgg la léegi xoolal boobu bàkkaar kon ñu tëdd ko nii moo gën mhm. tey bu ñu leen àttee xamal ñu taxaw jéggalu moo gën fuuf ñu yóbbaale ko ci seen biir bàmmeel kon war naa jàngal keneen ki nga xam ni mu ngi jug dem di yàqi doomu aadama parce que man dama jàpp ni nit ki temps bi nga war a jël pour yàq ko nga jël ko defar ko moo ko gën parce que boo ko defee sa bopp nga jëm gis nga li Baye wax wax bu am solo la mhm. nee boo tàllee loxo bi joxoñ ko benn baaraam nga joxe nit ki mhm. nee na ñett yëpp ci yow lay delsi bu dee lu baax ci yow lay delsi bu dee lu bon ci yow lay delsi mhm. kon da ngay obligé koy ba ngay joxeñ mu doon lu baax moo gën d'accord mhm. très bien Serigne bi Diop bala ñuy jeexal bu amoon kaddu yoo xam ne vraiment ci Korité 2023 bi moom nga bëgg dénkaane d'une manière générale jëmale ko ci société bi wala ci ndaw ñi lan lay nekk mooy dañoo sonn ci lacrymogène yi dañ koy tuddee xaw kon dañuy xool ci ñaari cas yëpp ki nga xam ne tey euh, waxtaan wa toog ñu xam ni lii mooy indi jàmm rek congaan ñu def moo la arrangé arrangé ma arrangé réew mi yëpp te billaahi réew mu amul jàmm kenn du am jàmm d'accord kon nag dañuy ñaan yàlla mm-hmm. président Macky Sall mi nga xam ne moom la yàlla teg ci bopp bi mm-hmm. lu mën a jéggale ma jéggal ko te yàlla rek tax président Ousmane Sonko bi nga xam ni tey bu ñu nee opposant dañ naan moom moom la fi yàlla tegit mm-hmm. it macha yoon bi ma jël mu gis gis jël de baax tekkam gi mhm. sëñ bi yàgg ngaa dégg ñun la ko ni tekk tekk wan la yoon wan la yoon sakk la te ki waxul mhm. xamoo jubluwaayam kon jaaxal na la waaye ki wax xam nga fa mu jëm mhm. moom problème boobu rek la doon am mais fi mu ne nag macha allah kon ñu ngi koy jaanal tekkam gi na sax mhm. mag ñi ci mën a jël puso it di ñaw ku ci nekk jug jël si puso ñaw ndaw yi ku ci am xel mu rafet nga wax mhm. te it président it mën a déglu xalaat yu rafet yooyu te bi ñu déglu xalaat yi nga xam ne ci poos la jëm loolu rek la mhm. ngi naan dafa mel ni société bi dañuy gën di révolté wu dañuy gën di bëgg violence di jàkkaarloog homme de tenue yeeg yu demee noonu loolu aussi du ñàkk nga wax ñu si sa xalaat wala lan mooy mooy moytul ma moytul ma ragal bu fipp ragal li nga sa doom sax boo ko tiimoon coom nga di dóor di dóor di dóor di dóor ba mu xam ne yow mii kay yaa ngi koy bëgg a escanté mm. boo moytu mu dugg sa yeel te doo ko tey de parce que moment ba mu koy def du ko tey gis nga tey moo lay wan ragaloon bu njëkk police gendarmerie musul bokk sa programme mm-hmm. mais tey boo demee ba jannoog ñoom nii attan leen a sànnante xeer xoolal waa Ngor niñ niñ jigantee mm-hmm. nga xam ne kon gaa yi ñu ngi am beneen xalaat boo xam ne tey dinañ tey lii buñ daqul li nga gis ñuy songante songante boo xam ne yow sa bopp da lay jaaxal te gënalul ñun ñëpp parce que ñoom it dafa am cër boo xam ne ñu ngi koy dox ci réew mi tey dafay baax ñu jël benn kii nekk ci réew mi ñu xam ni lii poste de police la wala lii gendarmerie la sa sécurité lañ yor nit nag du yor sa sécurité ba bari nga ñimee ko noonu cheikh bi baaxul jërëjëf euh, sëñ bi euh, lan ngay euh, maanaam tàggatoo ñi nga xamante ni ñoo la daan bàyyi xel à travers Dakar Buzz comme nangu woo takk ñaareel ndax kàdd googu du jub ci kër gi ah conga ah waaw comme comme sëñ bi nangu ta takk ñaareel man waa man sumulu laa àndal mais comme sëñ bi fi mu tumulu toogee nangu ko xëy na bu sumulu demee mu ne dafa bëgg a ñaareel man ah, ah, lu tontu taskir waaw tontu. du ma tontu. parce que. xam nga xam nga dafa am que yaa xam naa xam naa la bu baax. mais xam nga dafa am loo mm-hmm. maa ngi maa ngi di baal àq ñëpp. Uh-huh. fa laa